mu nekk ad darsu saalis ñu ngi tàmbalee ci aaya alquran yi yàlla tabaraka wa taala wax nahnu kazalika naqussu alayka nabaahum bilhaq kazalika naqussu alayka min anbai ma qad sabaq wa qad aataynaaka min ladunna zikra borom bi tabaraka wa taala nee na man yàlla tabaraka wa taala maa lay nettali histoire yonent yi ci dëgg histoire yonent yi amul kenn ku la ko mën a nettali mu nettali la ko ci dëgg ku dul yàlla tabaraka wa taala lan moo tax mooy yàlla moo ko nettali ci alquran moo tax ku la ko bëgg a nettali rek ci dëgg moom na la waxal alquran mais bu la waxee leneen lu dul lool rek daf lay indil njaxas daf lay indil jaxasee du la wax lu mun a leer yàlla mu ne man yàlla tabaraka wa taala maa la indil ay xabaar yoo xam ne xabaar yépp dëgg la ndax mi ngi bàyyeekoo ci man yàlla tabaraka wa taala yow muhammad alayhi salaatu wasalaam yow jullit man yàlla tabaraka wa taala maa la indil ay xabaar maa la indil ay information te yépp dëgg la lu tax ci man la bàyyeekoo wal nabda bil qissa min awaliha nabda bil bidaya qabla al anbiya wa qabla alsamawati wal ard nañu tàmbalee histoire bi histoire yonent yi ñu ngi koy tàmbalee ca njëlbeen ca commencement ba balaa yonent yi di am balaa yàlla di bind asamaan balaa yàlla di defar suuf lan moo fi nekkoon allahu xaaliqu kulli shay yàllaa bind lépp allahu yàlla xaaliqu kulli shay lépp yàlla moo ko bind dara amu fi woon dara dara yàlla moo defar lépp wa huwa ala kulli shayin wakil yàlla moom mu defar lépp moom yàlla lépp moom moo koy garde ndax moom moo ko defar moo koy garde nu ko nu mu ko neexee moom yàlla tabaraka wa taala xalaqa alsamawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayamin summa stawa ala al arsh yaalamu ma yaliju fi l ard wa ma yaxruju minha wa ma yanzilu min alsamai wa ma yacruju fiha wa huwa maakum aynama kuntum wallahu bima taamaluuna basir yàlla tabaraka wa taala moom moo bind asamaan ku defar asamaan yàlla yàlla moo defar suuf ku defar suuf ndax am na ku defar asamaan ak suuf ku dul yàlla déedéet tontu bi mooy déedéet asamaan ak suuf yàlla moo ko defar wa ma baynahuma li nekk diggante asamaan ak suuf yàllaa ko defar ñaata fan fi sittati ayaamin ci juróom benn fan summa stawa alal arsh après moom yàlla jublu na arsh ca gongonaayam gu màgg ga moom yàlla moom yàlla yaalamu ma fil ardi wa ma yaxruju minha yaalamu ma yaliju fil ardi wa ma yaxruju minha yàlla xam na luy dugg ci suuf yàlla xam na luy génn ci suuf mbokk yi su taw bi tawee fan lay wàcc ci suuf si pepp yooyu di dugg ci biir suuf si di dugg ci biir di dem yàlla xam na ñaata pepp ndoxtee la suuf si naan léeg-léeg mu taw waa météo ñu ne la taw na na nangamu milimètre yàlla rek moo xam ñaata ñaata la ñaata ndox moo dugg ci biir suuf si yàlla moo xam lan moo nekk ci biir suuf lii génn ci biir suuf si yàlla moo ko xam kenn xamu ko ku dul yàlla tabaar moo tax mu ne yaalamu maa yaliju fil ard wa maa yaxruju minha yàlla moo xam lu dugg biir suuf yàlla moo xam lan moo ciy génn wa maa yanzilu min assama lii wàcc jóge kaw asamaan di ñëw ci suuf kan moo ko xam yàlla wa maa yaaruju fiiha lii yéeg lii yéeg dem kaw asamaan kan moo ko xam yàlla yàlla moom waxu ma akum fu ngeen nekk yàlla nee na maa ngi nekk ak yéen fu ngeen mën a nekk foo mën a nekk foo mën a dugg foo mën a dugg yàlla nee na maa ngi lay gis boo duggee ci biir néeg nga tëj yow kenn ci biir néeg bi ndax yow kenn la déedéet yàlla mu ngi foofu boo duggee ci ron lal gi ndax yow kenn la yàlla mi ngi foofu boo gasee pax ba mu xóot nga dugg ci nga ut benn benn bant bu yaatu nga tëj bunt bi ci kaw ndax yàlla gisu la yàlla mi ngi lay gis boo duggee ci biir saako nga dugg nga tëj gémmiñu saako bi ndax kenn gisu la yàlla mi ngi lay gis boo duggee ci biir bërigo nga tëj bërigo bi ndax kenn gisu la yàlla moo la gis yàlla nee na wa huwa maakum fu ngeen mën a nekk rek man yàlla maa ngi fa maa ngi leen di gis kon bu dee lii dafa am fu ñu mën a nekk yàllaa ngi ñuy gis kon lan lañ war a def dañu war a def lu leer ndax yàllaa ngi lay gis fii ñu toog nii kan moo fii simmeeku yaramu neen lu tax parce que nit ñaa ngi lay gis da ngay rus loolu suñ la la woon simmeeku li nga def yaramu neen ñu may la cinq cent nga ni maa bañ lu tax parce que nit ñi dañuy gis sa yaram nit ñi dañuy gis say awra léegi nag yow nag léegi nag yàlla nag foo nekk yàlla mu ngi fa te mu ngi lay gis moom yàlla moomu tabaraka wa taala wa huwa bi ma taamaluuna basir nee na lépp lu ngeen def rek teg naa ci sama sama gis lu ngeen def rek man yàlla gis naa ko loo mën a def loo mën a def yàlla neen gis naa ko boo gëmee aaya bi foo nekk yàllaa ngi lay gis yàlla xam na li ngay def est ce que kon war ngaa am bakkaar kon boo amee tamit da ngaa war a tuub parce que yàlla nee na maa ngi lay gis looy def maa ngi lay gis ah bu la président de la république boole woon ak ñaari garde corps ñu lay garde booy dox garde corps bi nekk ci kanam ki nekk ci ginnaaw ay gendarme boo toogee ki nekk ndeyjoor ki nekk càmmoñ boo tëddee ki taxaw ci bopp yi kii taxaw ci tànk yi ndax di nga def lu bon déedéet tontu bi mooy doo def lu bon kon nag yàlla mu ngi boole ak ñaari garde ba pare yàlla mu ngeeg ñun waxumal ginnaaw garde yi yàllaa ngeeg ñun kon nag nañ leen góorgóorlu wa huwa alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayamin wa kaana arshuhu alal ma moom yàlla tabaraka wa taala moo bind asamaan bind suuf ci juróom-benni fan jamono yooyu muy def loolu nag turonam bi moom yàlla tabaraka wa taala gonganaayam gi arshuhu alal ma ci ndox la nekkoon ngeen balaa asamaan di am balaa suuf di am balaa jant di am balaa weer di am balaa biddiw di am balaa géej di am balaa dex di am balaa dara dara dara dara dara dara am moom yàlla wa kaana arshuhu alal ma turonam bi gonganaayam gi mu ngi woon ci ndox ma kon nañ bàyyi xel loolu suñu bàyyee xel loolu rek kon mbokk yi lépp suñu lépp day baax kon duñu am benn jafe-jafe moom yàlla tabaraka wa taala ñëw na ci hadis boo xamante ne al imaamu ahmad rahimahullah moo ko solo mu jële ko ci abi ruzayn mu ne laqitu ibnu amir asaqafi radi allahu anhu annahu qaal ya rasul allah ayna kaana rabbuna qabla an yaxluqa alsamawati wal ard abu ruzayn nee na damaa dajeeg abu amir asaqafi ma laaj ko ma mu nee na ñun ñaar dañoo dajeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu daal di laaj yonent bi abu amir asaqafi moo dajeeg yonent bi daal di koy laaj mu ne ko yaa rasulallah yow yonent yàlla bi ayna kaana rabbuna qabla an yaxluqa alsamawati wal ard yàlla fan la nekkoon balaa muy defar asamaan ak suuf fu yàlla nekkoon yàlla fan la nekkoon balaa muy defar asamaan ak suuf fan la yàlla nekkoon allahu akbar lan la yonent bi tont fa qaala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaana fi fi ama kaana fi ama kaana fi ama ay fi faraag summa xalaqa arshahu ala almaai wa hadihi bidayatu lxalq fan la yàlla nekkoon mu ne yàlla mu ngi woon ci espace fu amul dara foofu la yàlla nekkoon fu amul dara foo xam ne amuloon asamaan amul suuf amul jant amul weer amul biddéew amul géej amul dex amul dara foofu la yàlla nekkoon mu ne jamono jooju toronam bi moom yàlla tabaraka wa taala gonganaayam nga mu ngi woon ci ndox mi nee na loolu mooy njëlbéen bi yàlla bind mooy asamaan ak suuf ñëw na ci beneen hadis allazi yarwihi imam ahmad wa abu daawud wa tirmizi wa gayrihim an ubada ibnu samit radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة جلنا نجي حديث بو خامني imam ahmad moo ko nettali mu jële ko ci abu daawud abu daawud mu ngi ci tirmisi ubaada ibnu samit moo ñu nettali hadis bi nee na yonente bi alayhi salaatu salaam nee na li yàlla njëkk a defar inna awwala maa xalaqa allahu xam ngeen li yàlla njëkk a defar ñu ne ah mu ne alqalama big yàlla big la njëkk a bind da ngeen déglu bu baax pour bu ñuy jógee ci laaj yi li yàlla njëkk a bind mooy big alqalam big ak xalima su ma qaala la uktub bi yàlla defaree xalima gi ba pare mu ne ko bindal big bi daa di bind bi maa huwa kaa'in ila yawmi alqiyaama big bi daa di bind lépp loo xam ne dafay xew ba yowmal qiyaam jot big bi da moo ko bind yàlla da ko bind rek ne ko big mu ne ko labbayka yaa rab mu ne ko bindal big bi daa di bind amul ku taxaw amul ku taxaw tey big bi naan nii de déedéet big bee taxaw rek di bindal boppam allahu akbar big bi xam ngeen lan la bind lépp loo xam ne dina am ba yowmal qiyaamati big bi bind na gis ngeen sunu toogaay bii bii ñu toog tey di def qisasul anbiya ndeke big bee ko bindoon lépp big bi bind na ko allahu akbar nee na loolu nag moom mooy njël beenu bind ñoo ne ci beneen hadis allazi yarwihi al imaamu ahmed mu ne lii nii ñu leen wax fi hada al hadis allazi yarwihi al imam muslim wa huwa ra'yu al jumhur al fuqaha fi hadhihi al qadiya nee na lii ñu leen wax moom mooy gis-gisu jumhur soo déggee ñu ne jumhur mooy borom xam-xam yi bu ñu nekkee téeméer juróom-ñetti fukk yi wala juróom-ñeent fukk yi ñoom lii lañ d'accord lii ñu leen wax léegi mooy yàlla li mu njëkk a bind mooy xalima mu ne ko bindal xalima gi daal di bind ñoom ñëpp loolu lañ d'accord boo amee ci ñoom ñu wuute ñu ndaw lañ amaa jumhur mbooloom golobaalu yonent yi ñooñu dañu wax ne lii la yàlla njëkk a defar mu ne borom bi tabaraka wa taala mbir yi la njëkk a bind lii ñu leen wax ni loolu la njëkk a bind awalan jëy lañ ci abdullahi ibnu amr ibnu al-aas radiyallahu anhuma qaala samitu rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kataba allahu almaqadir alxalaiq qabla an yaxluqa alsamawati wal ard bi xamsina alfu sana wa arsuhu alal ma abdullahi ibnu amr nee na yonent bi alayhi salatu was dégg naa yonent bi mu ne yàlla bind la téere dogal mbir yi téere bi nga xam ne moom la mbiru doomu aadama yëpp nekk yàlla bind na ko balaa muy bind asamaan ak suuf xam ngeen ci ñaata at ci juróom fukki at junni at juróom fukki junni at xamsiina alfu sana juróom fukki junni at la yàlla bind lii xaw lépp balaa dara di am yàlla da bind na ko ba pare juróom fukki junni at kon lépp lu am loo gis léegi la nga xam ne yàlla bindoon na ko kañ ci juróom fukki junni at la ko yàlla bind ba pare muy doog a am loolu suñu hadis boobu Abdullah ibnu Amr moom moo ñu ko nette nee na jamono jooju wa arsuhu alal ma toronu yàlla bi mu ngi ci ndox mi isan mbokk yi al arsh awalan li yàlla njëkk a bind mooy arsh arsh mu ngi woon ci ndox mi kon la moo ci tegu al qalam big bi fa xatta bihi mu daal di bind lépp su ma jaa samawaat après ginnaaw big bi lan moo ñëw asamaan moo ñëw ginnaaw asamaan lan moo ñëw al ard suuf moo ñëw kon saa yoo déggee ñu ne la li yàlla njëkk a bind ñu ne xalima gi loolu ci àdduna lañ ci jublu wax su fekkee dañ ko tàmbali ci global nag ca kaw lañ tàmbalee di wax li njëkk a am mooy lan la mooy arsh bu dee ci mbiru àdduna yi nag suñ lay wax li yàlla njëkk a bind mooy al qalam mooy big mbokk yi ñëw na ci beneen hadis boo xam ne imam Bukhari moo ko nettali muy hadisu Imran ibnu Husayn qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ahlul yaman li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ji'na li natafaqaha fi ddin wa li nas'al an awwala hadha al amr yaani bidayatu lxalq waa yaman dañoo ñëwoon ci yonente bi yaman benn dëkk la ña fa dëkk ñoom ñooy waa yaman dañoo ñëwoon ci yonent bi alayhi salaam ne ko ñun de dañoo ñëw pour jàng dañoo ñëw di la laaj lan la yàlla njëkk a bind yàlla lan la njëkk a defar loolu lañ ñëw di laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la leen yonent bi doon mu ne kaana allah la ilaha illa allah balaa dara di am yàlla moo fi nekkoon kaana allah walam yakun shay'an qablahu dara amul foon lu dul yàlla mu ne wa kaana arshuhu ala al ma gongonaayam gi boobu mu ngi ci ndox mi wa kataba fi zikri kulli shay yàlla daal bi nu ci lawhul mahfuz lépp wa xalaqa samawati wal ard mu defar asmaan ak suuf kon balaa dara di am mbokk yi lan moo fi nekkoon yàlla kaana allah yàlla moo fi nekkoon walam yakun shay dara amul wa kaana arshuhu alal ma gongonaayam gi boobu mu ngi ci ndox mi wa kataba fi zikri kulla shay mu bind ci lawhul mahfuz lépp lu war a am lépp lu war a xew lépp lu war a nekk te loolu pare wa xalaqa samawaat yàlla defar asamaan wal ard ak suuf bu fekkee dañoo ñëw nag di ko tegale benn par benn pour ñu xam nee na loolu ay wax yu bari ñëw na ci ci waxu borom borom xam-xam yi fa jaa fiha aqwalun kasira lil ulama fa zakarna lakum at tartib allazi huwa ra'yul jumhur waaye tey dinañ leen nettal li nga xam ne moom mooy gis-gisu jumhur jumhur saa yoo ko déggee rek mooy li ëpp ci borom xam-xam yi lu ñu wax loolu mooy jumhur saa yoo ko déggee rek saa yoo déggee benn borom xam-xam di wax ak yow ba caag mu ne la waa jumhur nee nañ lan nga war a dégg foofu mooy li ëpp ci borom xam-xam yi kat ñoom lii lañ wax loolu lañ la bëgg a wax nii mooy lépp ci borom xam-xam yi nan lañ wax yàlla bi muy defar adduna bi nan la ko tegalee nan la defar lii defar lii defar lii defar lii defar lii noonu niñ ko tegalee loolu lañ la bëgg a wax bu dee loolu la ñëw na ci moom it benn hadis boo xam ne hadis bu wér la hadisun sahih yarwihi al imam ahmad wa imam muslim hadis boobu imam ahmad ak imam muslim ñoo ko soloo abu hurayra moo ko nettali nee na axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadi fa qaala xalaqa allahu at-turbata yawmu sabt wa xalaqa aljibala yawmu al-ahad wa xalaqa alshajar yawmu al-isnayni wa xalaqa almakruh yawmu ath-thulatha wa xalaqa an-nur yawmu al-arbi'a wa bassa ad-dawaba yawmu al-khamis wa xalaqa adama ba'da al-asri yawmu al-jum'a mbokk yi ñun ñëpp tey nañ ànd ñu déglu lii ñu gis yàlla bi muy bind adduna bi nan la ko tàmbalee lan la njëkk a defar yonent bi alayhi salaam nee na xalaqa allahu at turbata yawmu sabt suuf si yàlla am ko defar bisu samedi buñ la laajee suuf si wa xalaqa al jibaala yawmul ahad yàlla defar montagne yi bisu dimanche montagne yi kañ lañ ko defar bisu dimanche wa xalaqa sajara yawmul isnayni garab yi yàlla defar ko lundi bisu altine wa xalaqa al makruh yawmu sulasa feebar yeeg jàngoro yeeg mbir yu bon yeeg jafe-jafe yeeg naqar yeeg tiis yeeg yàlla defar ko bisu talaata al makruh mooy lépp lu bon yàlla defar ko talaata wa xalaqa nuur yawmul arbia bisu àllarba yàlla daa ci defar leer leer gi yàlla nga ko defar bisu àllarba wa bassa dawaabu yawmul xamis rabu àll yi lépp lu dëkk ci àll yàlla defar ko alxamis mu defar aadama ajjuma ci ngoon ci tàkkusaan la defar aadama alayhi salaam gis ngeen lan la yàlla njëkk a defar ah lan la yàlla njëkk a def bind fàtte ngeen hadis bi ma doon wax léegi-léegi mu ne yàlla mu ngi bind suuf si kañ bisu samedi montagne yàlla nga ko defar kañ garab yàlla nga leen defar kañ altine wa xalaqa al makruh yawmu sulasa feebar yeeg jafe-jafe kañ la ko yàlla defar talaata mardi wa xalaqa an nuur yawmul arbia yàlla defar àllarba lan leer alxamis lan la ci yàlla defar rabu àll yeeg seeni mbokk kañ la yàlla defar sunu maam Adama ajjuma ci ngoon ci tàkkusaan mooy tàkkusaan googu ngeen dégg yàlla naan wal asri giñ naa ci tàkkusaan ci tàkkusaan googu ci ngoon la yàlla defar Adama ci hadis yu bëree bëree bëree bëri xayru yawmin talaat fii sams yawmul jumaa bis bi gën a baax jant di ci xëy di fenk mooy bisu ajjuma ci la yàlla bind Adama ci la ko dugal aljanna ci la ko yàlla génn ci biir aljanna mbokk yi aaxiru xalqin xuliqa li mujje li mujje li yàlla njëkk a defar lan la mooy doomu aadama mooy aadama la yàlla njëkk a mu mujjee defar su ne laajee adduna bi lan moo fi mujjee ñëw looy tontu mooy doomu aadama mbindeef nit moo fi mujjee ñëw nit nit moo mujjee ñëw ci adduna kon leer na tey ci sunu bopp ne li yàlla mujjee bind moom mooy aadama alayhi salaam wa haada fii ma fi amrin waadix balaa muy bind nag yii ñu leen wax ba pare yàlla lan lay defaroon mooy malaayika yi ñoo ne ci hadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne xuluqatil malaayika min nuur yàlla bind na malaaka yi ci leer malaayika yàllaa ngi defar malaayika yi ci leer lan mooy malaaka ndax xam ngeen malaaka mbokk yi malaaka nit la tontu bi mooy déedéet jinne la tontu bi mooy déedéet yàlla la tontu bi mooy déedéet kon lan mooy malaayika al malaayika ñoom yàlla da leen a bind ibaadun mukramuun ay jaam yu tedd lañ yonent yi ñooñu xabaar ne malaaka yi am nañ malaaka yi ay lan lañ ay jaam lañ yàllaa leen bind lan la leen yàlla bindee min nuur yàllaa leen bind ci leer xalaqahumullahu min nuur yàllaa nga bind malaaka yi ci leer yàlla def seen fitra mooy pour ñu topp ko malaaka yi ñoom du ñu am bàkkaar parce que ñoom dañuy topp yàlla rek yàlla wax ci alquran laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun ñoom malaaka yi lu leen yàlla sant dong la ñuy def duñ ko mooy benn yoon mbokk yi malaaka yi yàlla bind na leen ci leer ay jaam yu tedd lañ duñu moy yàlla tabaraka wa taala ñoom malaaka du lekk du naan du nelaw du am jëkkër du am jabar malaaka yi leer lañ duñu suuf duñu safara duñu ay doomu yàlla yu jigéen ay jaami yàlla lañ leer na ah malaaka yi ay lan lañ ay jaami yàlla lañ ci la leen yàlla bind ci leer ci leer dañuy lekk dañuy naan dañuy sëy dañuy am jëkkër dañuy am jabar dañuy ami doom déedéet loolu mu leer seen bopp malaaka yi am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom ñooy bind jëfi doomu aadama yi am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom ñooy garder doomu aadama yi yàlla tabaraka wa taala nee na wa inna alaykum la haafizin am na ci malaaka yoo xam ne ñoo leen di garder yéen malaaka yi di leen garder nag kiraaman kaatibiin dañu seeni bakkaar yaalamuuna ma tafaalu lépp lu ngeen def rek malaaka yi bind am na ci ñoom ñoo xam ne ñoom ñooy indil yàlla ñooy yem ñoom la yàlla di yónni ci yonent yi ñuy yóbbu message yi risaala bi ku mel ne jibril yàlla wax na ci àl mu la koy jibril jibril di la ko indil ci sa dënn pour nga bokk ci ñi nga xam ne ay yonent la ñuy waaraat waxoon naa ñi ñoo ñu ngi tudd raqib ak ati am na malaaka yoo xam ne yàllaa leen di yónni ñu yor wax yu comme jibril ci ñoom ñoo xam ne ñoom ñooy jàppale jullit ñi su jafe-jafe amee yàllaa leen di yónni yàlla mu ne is yuuxaa rabbuka ilal ma annikum fasaamun keroog ca badr yàlla dafa yónni malaaka yi malaaka yi ñëw di jàppale jullit yi kon gis ngeen malaayika yàlla da koy yónni muy liggéey muy jaamu yàlla waaye moom malaaka nuróowul nuróowul ak jinne yàlla mun na ko ne defal nanga mu ne defuma nit yàlla mun na ko defal nanga mu ne defuma amma malaayika nag moom bu ko yàlla ne defal rek day def moom du mooy yàlla abadan moom nu rawul ak ñun ndax ñoom dañoo set dañoo sell dañoo baax dañoo teey ñoom nu rawul ak mbindee bindee fi ñoom dañoo dëgër bopp ñoo gin yàlla bu leen waxee dara yàlla da leen koy fàttaliwaat ñu bañ yàlla yónni yonent ne la waxal leen nit ñi ñu bañ ah moo ginne moo tax yàlla tudd leen ee yéen ñaar ñu dëgër bopp ñi malaaka yi am na ci ñoo xam ne dañuy liggéey ñoo nekk safara jaa ngeen quran alayha tisaata ashar wa ma jaalna ashaaba annaari illa malaika yàlla nee na am na neuf dix-neuf malaaka yu nekk safara ci biir safara tamit am na malaaka yu mbugalaate ñoo ñu ngi tudd ñu ngi tudd malaaka yi nekk biir safara zabaniya sanadu zabaniya ñoo ñooy dóor ñi def katu bàkkaar yi ñi bañoon jaamu yàlla xale jigéen yi doon bañ a muuru xale góor yi daan kiris karas seen tube yi di bënn seen nopp yi di ci def jaaro di xoos seen bopp yi di ko di ci def ay M ak ay double V yàlla malaaka yooyu lay la leen di booleel malaaka yi di leen duur ay bolde ci biir bàmmeel naan lu taxoon muuru woo dul lu taxoon muuru woo dul waaw akbar yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi ñun lan mooy sunu àtte ñun lan mooy sunu àtte dañoo war a gëm malaaka yi wala waru ñu leen a gëm dañ leen a war a gëm ndax lan ñoo ne jahadis arkaanul iman ponki ngëm yàlla ñu ne juróom benn la gëm yàlla lan moo ci tegu gëm malaaka yi kon ñun dañoo war a gëm malaaka yi waajibun ala kulli muslim an yumina bil malaika wa bima warada fi haqqihim min sifat wa a'mal qala taala amana arrasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله yàlla nee na warugar la yéen jullit ñi ngeen gëm malaaka yi leer na léegi ci ñun ne malaaka yi ay mbindeef lañ yàllaa leen bind ci lan la leen bind ci leer am na beneen mbindeef bu fi nekk bu tudd jinne yàllaa ko bind kooku tey kenn du ci waxtaan dañ koy tëb ba ba ñu amaat kisasul ambiya waaye mbindeef moomu tudd jinne yàllaa nga ko bind ci safara yàllaa ngi bind doomu aadama ci lii mu leen wan muy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci hadis bi nga xam ne hadis bu wér la mu ne xuliqat almalaika min nuur wa xalaqa aljannu min naar wa xuliqa aadamu min ma wusifa lakum yàlla bind na malaaka yi ci leer mu bind jinne yi ci safara mu bind aadama ci lii ngeen gis tey kon fii la ñuy arrêté xisasul ambiya bi kon tey gis ngeen malaaka yi luñ ci jàng gis ngeen balaa dara di am lan moo xewoon incha allah xisasul ambiya bii di ñëw lan la ñuy waxtaanee mooy jinne yi la ñuy waxtaan nan la leen yàlla bindee ñoom tamit ak seen melokaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب